nuyu nañ leen gërëm leen mbokk yi ci teewlu gi xerewlu gi kon ci émission Rewmi People samedi bu jot waxtu wi 16h jàpp di seteur ñëwaat nañ ci suñu plateau man ak ki ma ciy feggool saa su nekk jiili tey nag dañuy ñëwaat ci nu nu mënee beneen faset kon indi information people kon li nga xamante ni mooy buzz du net jëm ci wàllu people ñu waxtaan ci. ci loola kon lañuy soobu laata kon nag ñu ci xuus ma nuyu ki nga xamante ni mooy jiili noo def. ça va Mimi maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar auditeur ak auditrice su Rewmi FM euh, di bàyyi di bëggee ñii di bàyyi xel émission bii di Rewmi People di leen ziar bu baax a baax. <laughs> kon boog dañ ciy dugg léegi information people yi liñ koy tàmbalee mooy euh, rangu rangu ba tey nag moom euh, coowam daanaka fayagul. xale bu jigéen boobu di rangu def buzz jamono ci internet bi yow ban jàngat nga ci am. waaw bon rangu ay mbiram man daf ma xaw a yéem tuuti parce que jigéen la rafet nekk xale euh, mu doon ko seetaan si benn télé bu mu nekkoon à la place mu nekkoon mu doon def liggéey bu am solo mhm. ñu doon ko rafetlu bu baax a baax mu indi tuusam ñu dem ba si biir gisatuñ ko si tele boobu quelque temps après ñu gis ko muy def ay vidéo mais avant vidéo yi man benn flyer benn affice laa njëkk a gis sam benn bureau moomu ko yónnee woon ni ma gel bi da nga ko xam ma ni ko kii de xàmmee naa ko tuuti mais xamatuma fan la si laa duggee Google gëstu muy ràngu bu nekkoon si tele boobu ma lay wax mais nu mu solo jour boobu noonu man xawoon na ma yéem quoi mais après tamit yéem na ma yéemu ma ndax jamono bi boo xoolee xale yi jigéen ñi loolu du dara si ñoom solo boobu rangu solo boo duggee si Facebook bi da ngay gis ay sénégalais di ko def. Mm. ay sénégalais di ko def xam colin bi xaw a yéeme lool. mais soirée bi moo ma yéem. soirée bi deux cent mille entrée. waaw deux cent mille. mais yow yaa ngi ko woon. non daw ma nag. dew ma nag mais bu fekkoon am naa mun naa dem. mais bu ma demee lan fa doon yóbbu dañ kumpa voilà dañ kumpa xool li fa am lan la. nee nañ ay kilifa yu bëri demoon nañ. waaw de grosses pointures sénégalaises ñu fa woon. waaw parce que man que gëm nga ko. soirée bi bu mu bu mu bu mu jàllee moom def na vidéo nag gars yi ñi ngi fa woon ay ponkale ngi fa woon feesoon na dell. Mm-hmm. mais tase ak benn paa euh, Mame Matar temps yi nii rek doon ci waxtaan ak moom. Mm-hmm. mu ne ko dama dégg nga ni yow ay kilifa demoon nañ ci soirée bi sa am nga ci preuve mu ne ma waaw. ma ne ko yan kilifa la mu ne ma noonu du ma tudd seen tur mais ay patron de presse ak ay kii ñi ngi fa woon nu mu tuddati ay homme public ay gars yoo xamante ni ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ay mu ne ma kenn moo ko ci bett kooku ñëpp xam nañ ko si réew mi sa day xeex. Mm-hmm. xale yu ñuy xoqatal sa moom mu doon na wut information pour dem si soirée bi. Mm-hmm. mais bëggul wax tur bi. kon loolu dalay wane ni ponkal yi ñu ngi bëri woon na ay ponkal soirée 200000 nag moom Mimi foofu coomo du fa dem. wax dëgg coomo du dem sa rangu boo xoolee vidéo yu mu doon jaayee soirée bi ah vidéo yi boo ko seetaanee boo amul imaan dëgg-dëgg da ngay dem xale bi jekk na trop. <laughs> kenn rawu de. waa jii li ci loolu lañuy des euh, coowal ràngu boobu bi mu jógee mm-hmm. ONG Jamra te Mame jiite ko moom it jógoon na ci parce que moom euh, wàllu mœurs ci lay yëngu mm-hmm. loo xamante ni daal jekkul ci li nga xamante ni mooy biir penc mi mm-hmm. moom da ciy jug di ci wax di ci dox ngir jikko yi daal gën a defaru ci loolu sax la jugoon ne dafay euh, porter plainte ki nga xamante ni mooy Rangou il s'est passé nag beaucoup de choses parce que entre temps Rangou baalu na fi àq euh, récidivé waat fii laaj nañ ci Mame Mactar Gueye li nga xamante ni waa boobule affaire fan la ci toll kon euh, mu mm-hmm. indi ci ay leeral mm-hmm. voilà Mame Mactar Gueye à l'instant sur Rewmi People yow ak Rangou fu ngeen mujjee waaw mais xam nga ndaw soosu man xaw ma ko mësuma ko ak gis bu ma yeboonee presse bi moo tax nit ñi xam ko ak tamit réseaux sociaux yi ndax dugg na ci réseaux sociaux yi kenn demul luqati ay publication dafa ñëw ci fil d'actualité Facebook nee fa fang génn fa benn flyers ne yooyu ay day def promotion benn soirée privée loolu loolu yoonu kenn new ci bu yoboo dem tëju faak jarbaatu firaw na yeeg jaxasoo faak jarbaatu iblis di mooy yàlla ba fajar suñu yoon new ci ndax ku dee ak sa bàmmeel lu waaye ren di sa loxo lay nàcc waaye def affiche boobu tooñ ñëpp parce que dafa ñëw ci pénc bu mel ni Facebook Facebook pénc la ñëpp ko bokk le respect mutuel fu teeku dese benn sagoru soutien def slip di toroxal jigéen moom en tant que femme sénégalaise moom sa personne privée ne nous intéresse pas waaye li mu nekk jigéen di xawis turi jigéen particulièrement Sénégal moo tax ñun ñu jóg si ba mu yëgee ne nag ñun porté nañ plainte si la mer daal di dem ci euh, benn vidéo ne ko fàng ñëpp di ko gis mu yàq ma lu mel ni xamit paa boobu di wax ah dafa am lu mu wax moom mi nga xam ne di jóg sama kër. nee na doon làng si foofu. dama waaw nee na du fa jóg fa lay ñëw ma di ko ceebu jënal di ko defaral suppu kàññi ak ki dégg nga njarum soow ba pare di ko présenter samay copain góor jigéen xam nga moom xam na ne dañuy xeex yooyu donc la volonté de nuire était manifeste ma ne ko ah ndaw si léegi am nga deux plaintes benn bi pour outrage public aux bonnes mœurs attentat à la pudeur beneen bi mooy pour diffamation injure publique ba mu gisee loolu tiit na le lendemain mu defaat beneen vidéo soppeeku. muuru dindi yére yu bon yi sànni jël yëre ibaadu sol ko ak benn sagoru musóor bu ñuul waaye ba tey weewu jinne yaa ngi taxaw mu ne waaw maa ngi jégalu waa Jamra jégalu naa leen di jégalu sama tonton Matar ndax mën na nekk bàyyi ci man waaw eh, dégg man bañ naa ko ba tudduma ko sax ba may wax. Mhm. waaw eh, léegi eh, bu bu ñu bëggee sax ñoom waa Jamra. comme que yëg naa ne ñu ngi taxaw askan wi bu ma ñibbisee xeex bii ñuy xeex pour taxaw les 93 veuves des anciens combattants de la guerre du Golfe ma ñëw jàpp ci. xeex bi ñuy xeex ndax rey yi si dëkk bi bari na surtout xale yi alors ma ñëw jàpp ci. depuis loolu yow ku ne nee nag waaw jégalu na jégal ko ma bi rek. ndax man dama xam comédien. daay jégalu na waaye jégal ko waaye daa nga mën a tekk rek. Mhm. li ma ragaloon moo am ñaari fan lañ ci teg bi muy ndaw soo soosu nekkoon maîtresse de nos mariés attaqué na ma. parce que waaw jël bu set bañ leen daanoon daaw. ndeke mu ngi koy metti ba tey rek. loolu may ko fit rek mu songaat ma moom Rangou songaat ma. Mhm. waaw dégg naa Matar ne xam na onze personnalités yu ñëwoon ci sama soirée du dëgg du dëgg eh, dégg naa muy wax waxi Sonatel te man puce bi ma yor du puce Sonatel puce 76 la ratata dal suma ko. alors ci laa ne nag waa presse bi li ma leen ñaan ñaan ko tam waa Jamra nañu def fulla tuuti. te bàyyi di accepter ndaw si di ñu manipuler par le bout du nez. tey mu xaste ne Matar moo doon ñëw ma di ko jox suppu kànja ñoom seen. plainte ba dal mu tiit ndaw jéggulu jékki-jékki am beneen seytaane bu jóg euh, yëkkati kàddu jëmale ci man loolu may ko fit mu jógaat xasaat ma ainsi de suite alors ma ne kon nag comme que mbir mi mu ci loxo yoon euh, maa ngi gërëm euh, le commissaire El Hadj Cheikh Dramé bu police centrale ndax boole na ma avec le commissaire Sankhare bu sûreté urbaine dossier baa ngeeg ñoom nee naa kon ngir yàlla xale bi bàyyi leen yoon def liggéeyam pour mu xam ne dëkk bi dëkk bu baax la fii la Bamba tëdd Baye Niass Baye Laye eh, Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass te du lu lu neex waaye rek indi fii lu bon. Mm-hmm. loolu foog ñu yar ko. bàyyi leen ñu yar ko. maam mais est-ce que des doo am euh, un peu. ay crainte pour sa réputation gis nañ Calista moom tam mu attaqué la et ñu gis ay message comme quoi bon voilà ils veulent te nuire est-ce que des fois yow doo am njàqare ci sa wàllu image publique non non non loolu dafay dafay prouver que ñun combat bi ñuy def c'est un combat légitime xam nga ñun dañuy xeex ak franc baaxul yàq diine dañuy xeex ak ngóor jigéen dañuy xeex ak tuxum yamba bi Seydi sama wax naa nañ ko légaliser mhm. waaw kuy xeex loolu bu dee njullit gi ak diine ji ngay woote ci yow parce que catholique yi bugg ñuy yooyu euh, bërkaat yi démb rek la conférence épiscopale mm-hmm. euh, monseigneur Benjamin Ndiaye def na euh, kii bi compte rendu bi ñoom condamné nañ l'homosexualité condamné la franc-maçonnerie condamné yeneen ak yeneen yoo xam ne moom la l'islam di bañ waaw ku gis kuy xeex yu bon yooyu nga xam ne diine chrétien bu ko diine l'islam bu boo ko encouragé ñoo xam ne diine gi ngay woote dëgg la ci yow mm-hmm. waaye boo booy xeex kooku ça veut dire que ñi kooku di xeex yaa nga ca. kon nag li ngay wax naan dafay kii sama réputation au contraire. dafay dafay wane ne dafay wone ne ñii ndekete la ñu nekk du lu leer mooy li ko ci bor ma di wax naan ku wax feeñ. Mm-hmm. kon mboolem ñi ci wax yëpp feeñ nañu. fi mu ne yàkkalista fu ngeen ci tool. waaw moom nag xaw moo tane rangu. Mm-hmm. rangu day reewantu te ko teg ci yoon waaye Kalista ay mbokk ma ngi woote. Mm-hmm. ñu discuter. luñ lay wax. waaw bu ko topp. bu ko lii ma ne waaw d'accord mais na retirer ses menaces du ma moroomam te tooñ baaxul jotewu ma ak moom dara maa ngi ko gëj a gis depuis mars 2019 mooy ba ñu leen duma duma duma yu metti yi fii Sénégal <laughs> si seen film bon boobu nga xam ne day def de la pornographie verbale la promotion de l'adultère et de la fornication di rafetal njaaloo te ngor bu ko diine bu ko ñu duma leen dóor leen mise en demeure ndeke loolu la ma mere ba léegi kon moom xawuma ko keroog laa gëj a moom waa lu dul rek ma jékki ci réseaux sociaux yi. mu def menace jëmale ko ci man naan kii bésam a ngi ñëw te yàggatul. ah ko ah, laajee ak yoon de. alors léegi nag ay mbokkam a ngi wax. Mm-hmm. Eh, naan kii nangam ma ne waa d'accord mais na retiré plainte bi rek bu retiré bu retiré eh, bu retiré waxam yu ñaaw yooyu la. man tam retiré plainte bi incha allah. voilà alors jili kon ñu jàll ci beneen information mu ngi ñeel ko àdduna basketteur bu xarañ boobu di Kobe Bryant. Mm-hmm. l'américain ay bés bi ñu génn ci njeexteel gi ci la am crash yu metti moom ci la ñàkkee bakkanam yemul nag ci moom kase ndax bokk na ci ay nit yu ñàkk seen bakkan yeneen doomam bu jigéen mi nga xamante ni sax moom tàmbale woon na di ko tàggat ci wàllu sport bi mu nekk di basketball waajoo ji Kobe Bryant macha allah bëri alal nag lool ndonom foor lool xamoon nga ko. Euh, xamoon naa ko mais ñu ngi remercier Mame Matar Gueye li mu wax am na solo trop. Mm-hmm. ñu koy remercier bu baax a baax wax ji teey na dëggu na. Mm-hmm. Kobe daan naa ko suivre daan naa ko parce que man damay seetaan basket euh, donte bi ma ko commencé seetaan yàggul noonu ndax LeBron James. Mm-hmm. moom mi nga xamante ni. Liverpool dafa bokk ci actionnaire yi sama Liverpool mooy sama équipe looloo ma gën a poussé may seetaan basket mais Kobe nekk na koo xamante ni ndaanaan la biir stage am na fa respect bu baax a baax bi Michael Jordan demee euh, dañ doon wax kan moo ko remplacé kan lan yaakaar ni kooku bu ñëwee euh, dinañ ko xoolee Michael Jordan mais Kobe la woon mm-hmm. mais Kobe lu lu garaaw bi boo xoolee jour bu mu gaañu un an après maanaam Salah am na benn jour bu doon jóge France doon dem signé Angleterre def crash avion jour boobu noonu bi mu dellu si waatee la Kobe def crash même jour. mu nekk affaire bu yéeme peut-être gars yi américains ñoom ibbi nañ ci enquête ñu ne loolu tombe boobu mënul nekk quoi neen am na lu ci laxasu gars yi ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy ibbi enquête. Mm-hmm. xëy peut-être après dinañ ci am lu leer. mais li ci gën a garaaw mooy doomam bi jigéen bi nga xamante ni tey moom waaw da ko fonkoon bëgg ko mm-hmm. ndax euh, moom dañ ko doon takkal ci affaire jigéen tout le temps ay mm-hmm. dafa bëgg jigéen dafa bëgg jigéen affaire boobu noonu ñu ko doon takkal mu ne leen waaw man dama bëgg jigéen parce que ay doomi jigéen la ma yàlla na natoo moo tax ma bëgg jigéen dem di jàppale équipe jigéen bu États-Unis bi euh, boo xoolee championnat jigéen yi da ko doon suivre bu baax a baax di leen jàppale. Mm-hmm. ak lu mu mën ak lu mu mënul. léppam si jigéen yi la ko tënkoon kon buy gaañu ànd ak doomam bu jigéen wàcc na. koo xamante ni moom ambassadeur la woon. Mm-hmm. Eh, di jàppale jigéen yi fu mu toll. looloo gën a metti sax gars yi dese bi nu mu ci ànd ak doomam bi nga xamante ni da koo miinoon bëgg ko. Mm-hmm. loolu moo ci gënoon metti américain yi mais crash yi ñaari jour bu mu tombeel un an même jour beneen crash amaat 15 jours la woon kii basketteur bii di ñëw est nekk kuy am handball <laughs> wala nekk keneen relais vélo wala leneen ak leneen. Mhm. moo tax américains yi teel nañ ci jug teel a ibbi xool lu waral loolu. Mhm. Mhm. en tout cas doy na waar mais bon paix à son âme mais quoi qu'on puisse dire Djily moom c'était un homme responsable. parce que bien que ñu ngi ko doon takkal naa dafa bëgg jigéen et tout quand même il a il a tout fait pour fonder. une belle famille mm-hmm. macha allah amoo amoon na soxna am ñeenti bant donc nekk na koo xamante ni mun ñoo wax ni foyewul carrière te foyewul jeunesse am tamit. li si gën a garaaw sax moom avant muy gaañu dafa am benn record boo xamante ni bu xëyoon suba da koy dindi. Mm-hmm. xam nga si euh, tey dafa dem féliciter LeBron James di ko féliciter si job nice bu muy def si basket naan ko ndaanaan nga affaire yooyu. fii ak ci kanam tuuti di nga dindi record gars yëpp rythme bi nga ko jàppee nii di ko encouragé quoi ndaxte jour boobu mi ngi koy tàggu si suba si la la décédé la loolu am. Mhm. xam nga ce jour boobu noonu dafa waroon ñëw ñaari peñe moo taxoon mu aaji recordu benn eh, américain boo xamante ni ndaanaan la woon moom it foofu gis nga yàlla bañ. Mhm. di ko record boobu doo ko dindi. Mhm. mu nekk affaire bu doy waar. bu yéeme sax. en tout cas ñëpp la laal ah ñëpp. waaw ñëpp ah. mhm. parce que même bu siiwul woon ci ci ci ñenn ñi sax mhm. euh, dessin bi moom touché na ñoo xamante ni bëri nañ. Mm, au Sénégal comme à l'étranger partout dans le monde nga gis ñu bëri di bàyyi seen message kon donc euh, tout ce qu'on peut dire c'est reste une puce légende comme niñ koy waxee ji am na leneen loo xamante ni nag yëngal na Sénégal mooy Miss <laughs> semaine bi ñu génn coow li yëpp foofu la woon ñu bëri nee nañu dafa perte valeur am parce que bu ñu demee ba je sais pas si wala nit ñi naan bu ñu demee ba séeréer di gagné Miss. ah Miss perte na valeur est-ce que yow tu penses la même chose. li may wax rek mooy sénégalais yi ndeysaan. complexe bi du fi gaaw a jigéen mi mi. Mhm. bote lañu wax xale bi jigéen bu gagné suñu miis euh, du moom moo jox boppam victoire. dafa dafa dafa gis ñuy def casting Miss Sénégal mu dem déposé yàlla def mu jàll si présélection yi jàll muy ñëw di ko xoos di ko xoos ba yegg si ay jury toog euh, jox ko ndam ni ko yaa gañe mu nekkoon faak yeneen nawleem euh, sa miss yi boo xoolee dafa am ay kii critères yoo xamante ni moom la ñuy falee miss critères yooyu yëpp mu ngi moom bu dee teint noir yor na teint noir bu rafet parce que fii sénégalais yi dañoo tàmmam miis bu xees moo tax peut-être bu ñu gisee miis bu ñuul nii da leen di jaaxal. Mm. des fois ma gis yenn nit naan ay séeréer bu gañe miis non nan bàyyi yooyu arrête quoi loolu mimi man. waruñ ko jëmbat sax yooyu sax warut sax warut sax jëm kaw quoi kàddu yooyu mel ni séeréer fii ñu ñu fi gën a rafet si réew mi boo xoolee ñu si bëri ay séeréer lañu mimi. Mm-hmm. man ki may dundal séeréer la. mais ji ñi saboté mise bi ci réseaux sociaux na de. non Sénégal presque ñëpp xam nga mu nekk lu ñuy métti lu. ñu dem sax ba naan dafa nekk militante APR <laughs> moo tax mu loolu yëpp mun na nekk ndax moom gaañu Matar Bala Matar Ba sama doom la koy woowee yooyu yëpp mun na nekk ay Macky Sall moo fay xaalis pour mu jàll ba tey en tout cas dafa doon jonganteeg ay moromam. tey man gis naa ñu bëri ñu ko critiquer après bu ñu gisaatee yeneen photom dañ nu ah nag kii naxte ñaawul parce que émission bi jour boobu noonu ak xam nga photographe bi nu mu ko jëlee mbagg yeeg yooyu photo boobu la gars di utiliser di ko xas. Mhm. mais mise bi dafa rafet mi barki Rasulullah. première dauphine bi nee na moo ko dàq de te nee na moom lañ ko waroon jox waa Ami Dioum. rafet na moom it. foofu kenn ñaaw fa ami juum xeesaay moo ko yóbbaale. Mhm. mu jàpp ni moo ko war a gañe parce que dañu tàmmal benn affaire mise ku koy gagné ku xees la noonu mais ji li tendance boobu léegi mu ngi renversé wu de léegi gisoo ni teint noir lañ gën a. teint noir ci boppam dafa jot mu gagné miis mise yi ñu ko fi gagné ñëpp boo xoolee ñoom kati jàpp wàcc ci suuf yeneen gel yi fi nekk yëpp. dañ daan xees ay xeese booy la naturel lu woon ñu si bëri. mais booy bi dafa naturel indi teint peau noire. jëmmal africanité bi. xam nga kon gars yi bu fi nekk di ko sonal moom joxul boppam victoire dafa jaar si ay critères ba yàlla may ko ndam mi si mu dajaloon yëpp moo leen gën a nekk intellectuel fop. ah bon. sax yooyu noonu bokk na si li ko may poñ question yi ñu doon posé man seetaan naa ko ba deux heures du matin élection mi concert laa jugee juge concert ay une heure ñëw fekk kii bi di daw. ma toog di seetaan nag question yëpp la rajaxe waa yow léegi euh, euh, élection yii daan am ñeel miis ak léegi niñ koy côté organisation côté tànneef ci wàllu miis yi ban comparaison euh, positive ou négative man dama daan seetaan eh, kii miis yi nii avant avant jour élection bi dama leen dama leen doon seetaan si benn télé man fi ma toog maa ngi naan non léegi miis ñàkk na valeur booy leen indi mhm. ñii ñi nga xamante ni sawaay dàquñu sax mimi mimi la leen xool ku si gën a sew nga nii kii xam ba pare rafetuñu quoi mm-hmm. mais comme ñooñu la gars yi sélectionné ñëpp ñi gën a rafet bëgguñu bokk bokk ñu mm-hmm. danoo toog seen ruq ñi gën a rafet seen kër ñi ngi seen kër yi bokkuñu mm-hmm. danoo toog après affaire bi bu jàllee ñooñu ñooy taxaw di dal ci kaw ci kaw miis yi tey casting lan woote ku bëgg a bokk da def dangay jaar fii jaar fii ñi rafet ñi wóolu seen bopp nan dem mais ñoom bu ñu toogee après ñi gëm seen bopp dem ñu tànn si kenn ni ko yaa gaje après ñoom ñu toog seen ruq di critiquer loolu nag doxul mais Miss perte na valeur wala perte valeur si perte na valeur par rapport ak bu njëkk ba njëkk ba bàyyi miss yooyu ak miss yi comme yàlla ak yàlla mi mi. c'est ça bàyyi seen oh. et elles étaient euh, en plus d'être belles mm-hmm. dañuy jàng dañuy rafet et puis fu ñu dem représente Sénégal dañuy am dara parce que seen taar seen beauté. Mm-hmm. mais xam nga man miss bii nii pour man tamit cil mais par rapport ak yeneen miss yi fi daan jaar moom. Mm-hmm. comme yàlla ak yàlla quoi mais comme moom la yàlla def ni moo gagné nan ko ko nangul rek. sa félicité ko. xam nga mu gën a yokk góorgóorlu bu mu xeesal na bàyyi nii teint bi rafet na bëgg nañ ko nii xam nga mu xool naka lay chargé yaram bi mu gën a fees loolu rek la mais li si des yëpp ay détails la jigéen la jigéen a gañe jigéen la alhamdulilah waaw c'est ça dafa mel da nga bokk ak version sax Diamansi Camara parce que moom tam ci réseaux sociaux yi bokk na ci ñuy défendre Miss bi ah nee na la Miss est très jolie les Sénégalais sont complexés mais en tout cas sama mbokk séeréer la ma nga bàyyoo ko ba Fatick. kon nday Fatim Dione sa couronne bi yàlla la jik nga représenté ñu fépp. alors jili kon ñu jàll ci beneen information IGFM moo ñu ko jox mu ngi ñeel Fatim O apparemment. vingt ans passés donc euh, au groupe Futur Média moom ndaw soosu nga xamante ni su newaan dar oh. ñëpp déglu ko Youssou Ndour a perdu donc cette très belle voix celle de Fatim O Fatim Ouattara kon officiellement donc selon les informations du site IGFM elle a quitté euh, le groupe voilà l'information tu l'as eue et qu'est-ce que ça t'a fait waaw jot na nag vingt ans ngay liggéey ak nit mhm. euh, am talent mhm. am capacité yi li ñu avancé comme cause mooy elle est allée s'occuper de ses propres affaires euh, yow tu dis qu'il était temps qu'elle parte waaw Euh, comme que mi ngi si ay mbiru boppam rek euh, la nekk alhamdulilah li ñuy bañ mooy dàq nañ ko. Mhm. comme que moom liggéeyee na Youssou Ndour vingt ans dem ba war a xam ne ah war na demal boppam kët mu ne war na jot na nag ma demal sam bopp parce que Fatim oo oh, bu ñu waxantee dëgg rek niveau dafa kawe kawe nga xamante ni sa waay fu mu dem day bokk sa bu demee ba lijjanti ay yëfu boppam war na ko lijjanti faatim O oh, amul lenn lu xamante ni mun na ko defati mimi di yéemu. Mhm. non non instant bi ñoom mimi ñoo fi nekk yow yéen a war a prendre relève bi. tu penses qu'il était temps que mu def yeneen challenge. dëgg la mimi yow doo def vingt ans fi nga nekk. Mm-hmm. ñaan nga vingt ans yow ñaan nga yàlla balaa vingt ans mimi nga yor sa yëfu bopp. wala nga yor sa parce que président ñun sax daf ñu koy wax. xam nga ku si nekk tey war nga am loo xamante ni yaa ko visé après boo demee ba toll ci war a defal sa bopp nga defal sa bopp. Mhm. xam nga kon li Fatim def dañ koy rafetlu bu baax a baax di ko si félicité comme Pape Diouf bu mu quitté Prince Art dem ci ay mbiru boppam. ko ciy félicité loolu dara nekk si. Mhm. Mhm. jot euh, semaine bi tam on a vu beaucoup d' ci réseaux sociaux yi comme quoi le compte euh, du rappeur Booba dañ ko piraté ah. Euh, d'après toi pourquoi on on a piraté le compte du gars. waaw xam nga Booba moo nekk rappeur boobu ennemi. ah euh, waaw ci àdduna bi donte nag am na ay choppé parce que Booba France bu nu waxee côté rap waxuma côté bind. Hmm, day rap rek. Mm-hmm. Euh, français yi amul kenn ku ko ku ci dàq rap donte nag ñoom Youssoupha ñi ngi fa ñoom Kiri ñooñu ñoo ko dàq bind. mais bu dee rab dàq ñu rab buubaa te buubaa moo leen ëpp bayre buubaa moo leen ëpp buzz buubaa leen gën a bëgg mais buubaa dafa bëri ay ennemis boo xoolee ay karis ñeneen ak ñeneen buubaa gars yi tout le temps ñu ngi koy menacer de moor ay dan lay def lii dañ lay def laa kon bu ñu ba ba compte Instagram am ñu ñu piraté ko warul bett warul bett nit ñi parce que am na ñoo xam ne saa yu ñu xëyee suba ba ngoon si lu yàqal buubaa la ñuy dox parce que buubaa day déranger. day déranger bu baax a baax a baax sénégalais la mais sax même fii nii sax buuba am na ñoo xam ne da leen di déranger waaw waxoon mais buuba moom li muy li muy presté ji li Sénégal bëriwul de. bëriwul mais ñëw na fi def fi benn clip euh, ñëw na fi presque chaque deux ans dafiy dafiy ñëw tëgg presque chaque deux ans ñëw na fi def benn clip boo xam ne fii la ko defee xam nga euh, buuba. sénégalais pire diir la ay maamam yëpp fii lañ jógee xam mm-hmm. mu juddoo nag France màggee ay poloñ xam nga ñëw Sénégal ay maamam ñi ngi fi mais teewul ba tey mi ngi représenté Sénégal fu mu dem moom da koy expliqué sénégalais la français la polonais xam mm-hmm. moo tax buubaa moom lii du lii du lu bees si moom quoi boobaa yàgg nañ ko indil ay genre jabi yi nii boo xoolee xeexoon na fi Karis xeex bu metti moom it rappeur français la. Mm-hmm. xam nga ba gars yi ne woon dañ leen yóbbu tribunal gars yi yóbbu leen tribunal affaire yi ñu koy renvoyé ba nii mu toll nii. Mm-hmm. moo nekk rappeur boobu ay problème mm-hmm. ci rappeur yëpp. moo nekk rappeur boobu ay noon si rappeur yëpp. moo nekk rappeur bu nu gars yi di gën a topp c'est pourtant lu mu def même pas 24 heures day am ay millions de vies. xam nga yooyu yëpp day déranger daal day quoi. c'est acca ñu doxal ba tey jii li wax ci li nga xamante ni mooy groupe de rab bi di Daradji Family ñoom ils ont sorti un opus mm-hmm. ni mu tudd mooy Yamatele ap après cela ils ont donné une interview à la RFI Radio France Internationale ñoom nag ji ci ci li nga xamante ni mooy opus boobu liñ ciy dénoncé euh, mooy nit ñi africains sénégalais notamment léegi ni ñu amee fixation ci seen ay télévision seen ay téléphone portable les l'électronique quoi dañu dem ba euh, talatuñu sax lii xew autour de dem nañ ba bàyyeetuñ ci xel encore daara ji famille qui frappe fort un commentaire daara ji comme ni nga ko waxee ni nga jeexalee sa wax euh, daara ji moom kuréel la boo xamante ni kuréel bu am respect la euh, Sénégal Afrique àdduna bi yëpp bu nu defee seen EP bi ñu génne tuddee ko Yaama Télé di danoo dénoncer yenn affaires yi nga xamante ni mi ngi am ci internet bi ak ni gars yi concentré woo ci internet bi jamono bi mais ñoom ay sénégalais lañ Sénégal lañ nekk moo tax Sénégal lañ mën a wax mais li xew Sénégal moo xew àdduna bi fépp. ci mhm. gars yi bàyyi xel. danoo dem ba jamono bi danoo toll si jamono boo xamante ni sa waay boo toogee benn deux heures temps sax duggoo duggoo si net bi ay informat ay junni junni information ah, rëcc na la xam nga boo xoolee gars yi déglootun rajo seetaanatun télé léegi gars yi ñu ngi seen téléphone moo tax boo xoolee léegi presse en ligne bi dafa dox léegi boo xoolee si si net bi la gars yi di seetaanee journal yi si la ñuy dégloo yenn émission yi si la ñuy seetaanee sax yenn film yi mm-hmm. euh, monde bi moo dem ba toll foofu lii bi ko waa Rapadio di wax quatre-vingt-dix-huit la mu ne euh, kii mu ngi ko doon wax Matar la Kagulaar mi ngi naan dinañ dem balaa de boobu ay 2010 sax la fixé date bi. Mhm. ne pendant depuis ak 2010 dinañ dem ba nga xamante ni euh, sa téléphone ngay téye di contrôler àdduna bi di xam li xew fépp. ngay gis tey benn tubaab nekk dëkkam yàqal la koo xamante ni sa doom bu nekk ci ginnaaw Kirikoro ci biir Sénégal benn dëkk bu gën a ruqe. Mhm. Euh, ki koy yàq mi ngi France si benn dëkk bu gën a ruqe. si nag la ko yàqee mooy comme li waa daara ji wax sa téléphone la ñuy jël di la contrôler di la def loolu leen neex nga koy def xam nga tey boo gisee ay Kocc Barma sitam bi dem ba am doole euh, muy Seneprono yàq-yàq yi di feeñ peut-être daan na am mais boobu doole ji am doole ji internet indi nii nii yokk ko ci amu ci woon nit ñi li am nii nii mi mi daan na am comme yàqu-yàqu jamono bii nii am daan na am mais sutura moo amoon mais léegi sutura amatul parce que léegi loo def yaa ngi jël sa téléphone di ko caméra pour denc ko après nga xool def ay synap def affaire yu ñàkk fayda yoo xamante ni mooy loolu xam mais di félicité waa daara ji ne ñoom lii buñ ko mm-hmm. defee war nañ ko def mm-hmm. buñ ko deful it war nañ ko def parce que ñoom kuréel boo xamante ni si bind lañ leen xam te mm-hmm. gars yi leen di xaar bu baax a baax di leen félicité si mais daara ji gëj nañ leen dégg ji ils waaw Fada Freddy dafa si ñëwoon dafa dafa génnoon benn album. Euh, albumu euh, kii nu mu tudd gospel. gospel mu doon def promo bi euh, côté international bi mu jëloon huitième meilleur album gospel international. Ndongo moom it mu nekkoon fii doon ménager Fada Freddy ci album solo woom bi looloo taxoon gars yi nga doon leen déglu parce que dañ signé woon ci benn label bu nekk bitim réew. instant bi contrat bi jeex na affaire yi jàll na dañuy ñëw concentré wu ci seen projet bopp loolu sax bokk na si lu tax ñu génnee seen produit bii nii. mais lii foo ko gisee rek xamal ni album la gaa yi di waajal. lii waaw mais ñoom dafa mel ni li ñuy évoluer dafa mel ni toogatuñ Sénégal bien que liñ daan toog Sénégal bariwul mais léegi daf tu sens que daara ji moom déggatoo leen fenn fenn fenn au Sénégal. wala dañu ils se sont maintenant. non non Fada Freddy Fada Freddy la ay bagaasam nekk bitim réew. Mhm. Fada Freddy ndongo li mu nekk bëri na mais Fada Freddy euh, lu muy nekk bitim réew moo bëri mais ndongo moo koy ménager. bu mhm. demee bitim réew. Mhm. nekkul daara ji quoi Fada moom la gars di signé moom la gars di soxla si yenn affaire moom muy dem ndongo di nekk ménagère am. ndongo mooy beneen gars bu mu bokkal kuru tey bu ñu ñëwee Sénégal daara ji famille mooy amaat mais bu ñu génnee bitim réew. faada la gars yi di soxla. moo tax comme faada dafa nekk ci ay dafa nekk ci carrière solo nekk ci ay bagaasu boppam mu munu ko booleek daar ji à cent pour cent moo tax day def bu amee benn temps bu ndaw ñëw fii liggéey ak euh, ndonga ñu génnee benn affaire après mu delluwaat. ñu nekk ci seen i business su bopp quoi daar ji li ko gën a tënk lool la faada muy suivre carrière solo xam nga looloo tax euh, fi mu ne nii daar ji li nga koy dégg bëriwul parce que faada day def gospel. sa gospel tubaab yi doon ko bëgg. Euh, ndongo du def gospel moom rappeur la day rap euh, léegi pour pour bu mën a bokk. lan mooy particularité gospel. waaw gospel moo musigu boo xoolee musigu genre musigu diine chrétien yi la comme tey ni ngay ñëwee fii di déglu chorale yi fii di leen ko nangul comme ni ngay ñëwee di déglu benn son xasaayit nga xam ne li Serigne Bamba bind mais waajee ko way ni ngay dégloo Naya Bing mooy musigu reggae yi seen diine yi suñu toogee war a wax ci yàlla. gospel genre musique boobu la quoi musique la bu nga xamante ni day wax ci affaire religion chrétien pure dire ñoom ñoo ko daan def quoi mais dañ dem ba génnee ko nag. xeetu musique boobu dañ dem ba génnee ko mun nga ci way mimi mun nga ci way euh, sida mun nga ci way leneen ak leneen mais gospel benn forme musicale la boo xamante ni du changé. Mm-hmm. mais affaire euh, musique chrétien la quoi musique chrétien la ndaanaan nag moo koy mën bu dul ndaanaan doo ko mën. très bien alors keneen koo xamante ni um, bu nekkut ndaanaa nit mu ngi jéem mooy euh, ki nga xamante ne mooy Talla Diazaka moom it semaine bi feuille flamme mu ko mu ngi koy def ci réseaux sociaux yi notamment ci site yi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum people parce que dafa génne album tuddee ko Diazakalisé ah, ji daa mel ne xale bi nag am na bës. Euh, li ma gën neex euh, si loolu. Jasaaka Lisé bi mu tuddee albumam neex na ma trop. waaw parce que tey jii boo voilà baayam woote woon na foire dem di tëgg ay dix set sept ñoo fa nekkoon gars yi kaf gars yi photo publique bi ak papaam tas ko si net bi na Jasaaka Lisé mhm. ba loolu dem ba nga xamante ni ku tëgg concert sax mu échec sax dañuy naan la Jasaaka Lisé mhm. loolu lay tuddee léegi nag euh, moom gis na ni loolu ñu ngi koy tooñee papaam ñu ngi koy tooñee sa tur boobu dem na ba léegi nekk slogan si bopp sénégalais yi mu ne xaaral ma jël ko. Mm-hmm. léegi nag moom jël na ko ne day relever benn défi léegi nan xaar rek album bi bu naa ay moromam ñu ngi fi ay moromam rek la fi fekk ku si mel ni ay Jaw Diop ñoom Sidi Diop xam nga donte ñoo ko xaw a mag si at nag tuuti xam nga. yow xale bi yaa mës na ko déglu. xale bi mës naa ko déglu mu def benn featuring ak papaam. mu way wayu ndaanaan waaw ndaanaan wayu ndaanaan la way foofu boobu ñi ngi teg kooraal euh, xalam moo papa ji ñi koy joxonte mais ni ma ko dégloo ndaanaan la sa booy bi maa ngi njëkk a découvrir booy bi boobu mi ngi doon doxaan béti coow loola coow loola <laughs> waaw boobu mi ngi doon après si laa ni ma gëstu booy bi kan la ma gëstu ko mais temps yooyu gisuma ci woon ndaanaanam mais yi ma mujjee dégluwul si booy bi màgg na màgg na quoi te puis mus naa ko fekk bu boîte papam boobu mi ngi tuddoon Bélé mu ngi nekkoon alma Almadies route des Almadies fa la nekkoon ñu doon fa dem benn conférence de presse man ak papam ñu toog di yaatal mu ne ma sama doom la day woy quoi mi ngi si ay bagages boobu yàgg na nag booy bi di ñoddi affaire de Baye Fall ma ni ko saa lii nii. ngay jéem a ñoddi nii saa yi Carlou D ko fi sa lekkagul milliard. Mhm. sa baay ñoddi na ko fi sa lekkagul milliard dëgg la mu ne ko jamono bi soo xoolee nouvelle génération boobu ñoo fëloon ak yooyu mu ne wala ñu ngi lekk seen xaalis ñoddi lii nga dem. Mhm. bu bi mi ngi fi. Baay Faal bi fii gars yi ko fi ñoddi bëri na mais après loo ci gis. Mhm. sooy def dara pour bëgg mu am dara da ngay xool ñi nga xamante ni ñi ngi def lii ñi ngi dem. nga a ñëw def loolu. pour mën a dem yow tamit. bu dee talent bi mi ngi fi bu fi talent bi nekkul nag doo dem mais en tout cas ñi fi fekk ay ndaanaan lanu bas cuum rang bi seere na pour moom mu ñëw nag wane lu leer pour ñëw pour mu ñëw bokk faaw mu wane lu leer Mimi. on espère bien que il va relever le défi Talla Diazaka le fils de Mame Gor Diazaka mam kon euh, jamono yi mu ngi en passe d'être sur le marché mu ngi ko tuddee Diazakalisé alors Djily euh, am na mariage boo xamante ni mu ngi wër ci réseaux sociaux yi te def buzz ñu ne Pape Diouf moo takk ñaareel euh, kon ñu ne wutal na ki nga xamante ni mooy bébé Bass ab raq mais da ko weddi ndax nee nañu kii di rakkam di mm, di wuyoo turu xaadim cuun xaadim juuf plutôt di wuyoo koon xaadim juuf moo takk soxna nit ñi lan moo tax léegi ñu gaaw a attribuer ñaareel artist yi. réseaux sociaux bi site bu si nekk yaa ngi wut nombre de vie site bu si nekk yaa ngi wut nombre de vie tey. code la gis nga li ñuy ni ñuy titré Pape Diouf prend un ñaareel yow par force di nga cliquer. te pourtant wax nañ dëgg. ndax raxam la raxam moo takk soxna soxna Pape Diouf sox soxna rax Pape Diouf soxnay Pape Diouf la. mais nag du Pape Diouf moo takk soxna. <laughs> mais gis nga site internet man am naa expérience ndax dama ciy liggéey nombre de vies yi tey du ma fi du ma du ma la wax nombre de vies bi lii ngay am lii parce que ay code la. xam nga mais pour ma wax la benn affaire bu ndaw rek mais Djily loolu arnaque la de. un million de vies un million de vies dix millions ngay fayeeku. Mhm. un million ngay fayeeku léegi ñoom dañuy jéem a def le tout pour seen nombre de vies yokk léegi nu nu mën a def pour yàq Mimi wala pour yàq Djily wala pour yàq kenn pour mu am nombre de vies dañ koy def. Mhm. parce que nombre de vies yooyu moom moo leen di seen courant moo leen di fayal seen ndox moo leen di fayal seen i emploi moo tax site internet yi léegi boo ko toppee da ngay dem ba yow da ngay réer parce que li ñuy titre ak li am ci biir comme yàlla ak yàlla mm-hmm. moo tax gars yi dañ ci war a jug bu baax a baax Mame Matar Gueye waa Jamra ñoom it war nañ si jug bu baax a baax ñu jéem a wax ak site internet yi nu ñu man mës naa def émission ak benn artiste no benn animateur euh, waaye di def tiitre waaye di dafa am problème ngaa ko bëlente ak diib mais moom si boppam moom wo ni ma gaañ bii nii dindi ko. Mm-hmm. xam nga mu ne ko lu tax mu ne ma non li nga tiitre nii daf may déranger quoi xam affaire bi mais après dama ko mujj dindi parce que bëgguma tooñ. Mm-hmm. moo tax gars yi nañuy xool titre yu ñuy titre bu baax a baax quoi xam nga bëgg mimi seet bëgg mimi daw xool li nekk ci biir bu mu tax ngay naan ay Pape Diouf takk na ñaareel. Mm-hmm. sa Pape Diouf takkul ñaareel rakkama takk ñaareel. Mm-hmm. mais comme yaa ngi si wàllum takk ak tekki dañuy féliciter. Euh, at moo flow mhm. moom it takk na soxna. Ah waaw gel bu mu bokkal ci série boobu noonu noonu. c'est vrai que loolu tam def na buzz ci net bi Esther. waaw officiellement daf ko takk. dëgg la dëgg la waaw et moom moom lu ma la ci wax takkal téere loolu dëgg la takk na ko xam nga ak benn rappeur bu bu nekk Cosa Nostra loolu man maa ko suruxal sama épo bopp la Lasga. Mhm. moom it takk na soxna ñu koy félicité bu baax a baax di félicité Edmo couple boobu sénégalais yëpp bëggoon nañ ko bu Edmo bi am na. Euh, gars yi doon nañ ko rêvé mujj na am ñu ko ñu leen di félicité bu baax a baax di ñaan sëy bi barkeel ñu am si jaboot gu barkeel. Mm-hmm. rakk Pape Diouf boobu tamit ñu koy félicité bu baax a baax te site internet yi nañu xoolaat bu baax lu ñuy def. d'accord am na solo kon ji li daanaka li lañ indi woon tey ñel information people laata ñoo tëj rek tey euh, bi ñuy xool ci net bi tam waa VIP people ñoom ñu ngi ñëw di luqati mbootu ki nga xamante ni mooy Lisa John nekkoon fi soxna. Euh, ki nga xamante ni mooy Pape Omar Diop jiite Marodi TV donc pod euh, ñu ne nag moom jamono yi mu ngi ci ay difficulté ndax gannaaw ba mu divorcé euh, tas ak ki nga xamante ni mooy pod li nga xamante ni sax mooy salon de coiffure am jamono yi daal tëj ndax nee nañ problème mu loyer moo ko sooke du samay kàddu nag waa VIP people ñoo indi boobu la xibaar ñeel Lisa John alors jili un dernier son avant de nous quitter. Euh, dernier son euh, dernier son nga wax. Mhm. non nañ leen may euh, bu la dara metti bu euh, Edmo ak euh, <laughs> ki nga xamante ni moom mooy Esther Ndiaye donc ils sont officiellement marie et femme couple boobu nga xam ne dañ leen daan gis ci télé ci série télé yi ak ci clip bi kon nit ñi doon xel ñaar ci seen diggante tey ji nag officiellement nee nañ ils sont mari et femme kon sur cette information amis auditeurs ci lañ leen di kon incha allah ba samedi ci oui man man na naroon cee def sans commentaire a ca waxal. lu mbedd tas mbedd li mbedd takk mbedd koy tas parce que man seetaan naa benn jour pot mi expliqué ne dafa taseeg soxna si boobu xamu ko woon sax. Mhm. dafa taseeg moom mu neex ko xam nga mu jël numéro am après mu woo ko quelque temps après mu takk ko tey soxna si divorcé nañ ñoom ñaar am na ay jafe-jafe moo tax gis nga jigéen. bul gis nit ki si télé bi rek euh, mu ne la dama la bëgg lii rek nga naaw song ko fii lay mujjee moo tax nan bàyyi xel bu baax a baax sëy yi nga xamante ni li koy takk xemem la mhm. lu xemem takk rek après bu découvrir lu mu bëgg a gis rek bu ko gisee rek après sëy bi day tas di wax ni gars yi nan jàppale xale yi jigéen ñi quoi mhm. xam nga te yàlla tax xam jigéen mënoo ko fekk euh, peut-être muy bëggante kenn nga ñëw mu gis la si télé bi fan la bëgg la nga ñëw doxaan ko woqatu bi taseeg gestu mu nangu nga taxu ko même part trois ans quatre ans après ngeen divorcé tey mi ngi nii nekk si ay problème yoo xamante ni gestu woo ko wala boog yëguñu ne gestu nga ko dijanti woo ko tëj nañ salon am dinañ tëj leneen lu dul salon am parce que mu ngi noonu ah. dafa am góor ñoo xamante ni sa waay mooy loolu quoi mais yàlla na ko taxaw mu amaat beneen góor bu baax bu ko mën a jàppale siggilaat ko dimbali ko mais yàq naa ba niiru xale bi daal. ay ay doo ma alors c'est sur ce message de de Djily mu nga xamante ne moom la lancé xale yu góor yi kon xale yu góor yi bàyyi leen xel ci loola jàppale leen gone jigéen yi amis auditeurs kon ñu dem ba beneen yoon samedi ñu toog fi ak beneen daanaan euh, nekk ci show bi sénégalais bi jërë ngeen jëf ci teewlu bi très bon week-end en compagnie des programmes de la radio du bonheur.